François. Mais Massali, depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure. Non, je n'en sur personne. Je n'en sors pas leen di gis dëgg di ragal di il ne s'agit pas de ragal. non ragal. mais y a un ci plateau. loolu lay nduru yenn kaddu yenn kaddu yu yenn kaddu de toute façon je ma demande parce que je le connais.

qui est un criminel ici mais Ousmane Sonko ngeen bëgg si ànd ak moom il faut arrêter Fatou Abdou ci nga dëgg dëgg kenn du ko raay man du ma raay dëgg man du ma ko raayal benn doomu aadama ku ko mënul bu ma invité si plateau mais dëgg man fu ma fekk fa la may bàyyi waaye ji mënut a taxaw fen fi ay fen yu leer askanu Sénégal gis ko koo xam ne lu mu wax tey balaay cinq minutes mu génnaat beneen wax nga toppaat ko mu soppi ay waxam ngeen taxaw fi naan ma ay est-ce que nekkoo du acharné sur la personne Ousmane Sonko est qui est-ce qu'il est est-ce que Sonko est-il plus sénégalais que nous Modou Lamine Massali est-ce que Sonko ñu moo ñu gën ñu est-ce que Sonko moo ñu gën a bëgg réew est-ce que Sonko moo ñu gën a moo ñu gën a bëgg Sénégal on se calme mais quand même il faut arrêter wax ñu wax ci débat bi au lieu que fi nga ñu bëgg a yóbbu ci débat bi yóbbu ma leen fenn parce dëgg moom dëgg fu ma fekk fala may bàyyi il n'a aucune vision c'est un criminel un danger permanent je l'assume parce que j'ai l'impression depuis tout à l'heure quand même que euh, su ñu waxee waxu troisième mandat euh, ñu dellu ci Ousmane Sonko euh, wax ne que. yéen a ko tudd man tudd parce que man ça personne n'importe quoi emploi ak employabilité des jeunes ñu tourné ci moom ne ay fen ay sos alors que même bu fekkee dañuy ñëwaat sax tout à l'heure mu wax ko waxu jeunes yi président de la République du ñu naatable quand même ne que am na yu ñu fi teg yoo xamante peut-être pour jàppale jeunes yi mais président de la République ci boppam moom moo toog pale wax carrément ne que emploi yi mu diggee woon moom du yalla du yonent donc fofu mën nañ japp ne que lajité amna fa. non la yamul yéen la am je termine je termine. je termine laissez-moi terminer président de la république mom mo taxone événement mars yi bi mu fi amé mu taxaw carrément wax ni jeunes je vous ai entendu et je vous ai compris. contexte président de la république président de la république mom mo taxawat encore une fois euh, euh, Barki Dembo Ndiaye ci bi adresse à la nation waxat encore ak jeunesse jeunesse bi mais fofu Massaly euh, bu fekkee yéen sen leader mom mo taxaw wax loolu yëpp constaté ne que emploi de euh, euh, euh, dafa dafa dafa xaw a sooxe fii ci Sénégal mais yow nga bëgg ñëw wax ñu contraire bi ça ça nous pose problème waxuma le contraire de man je pèse bien mes mots crise mondiale bu amee dañ koy nangu lu xew Sénégal du fii rek la am. d'accord am na pire en Europe pire aux États-Unis pire même à travers le monde entier loolu faw ñu nangu te loolu moo am. mais donc mënuñu jël yëpp rek à chaque fois suñu waxee ñu tourner ko vers une personne. mais pourquoi pourquoi non man cette personne là cette personne ne m'intéresse pas. mais depuis tout à l'heure yaa ko tudd mais yéen a ko tudd. mais non depuis tout à l'heure mais y a ko tudd ma fekk leen ci. da nga ma tudd rek ma ma décrire l'homme la personne. waaw mais la ma ñàkk Thiès ay sosom yi moo continué law ba Thiès mu taxaw wax ko askan wi gis ko loolu moom mais je l'assume man la ma je l'assume mais concernant l'emploi du des ça chaque jour que j'ai fait j'ai yi si président Macky Sall def du Senghor du Abdou Diouf du président Wade bi ñu àndaloon bi ko si def ñu bëgg ko moo am ñu nangul ko ko moo am waaye nag nit nag njàmbaarteem da ngeen ko war a nangul loolu moo ne

bu nuroo ak li dalon Khalifa Sall il faut juger Khalifa Sall avant ñu dem ci élection présidentielle est-ce que du loolu lañu ñu bëgg def aujourd'hui Ousmane Sonko il faut ñu démat interjeter appel gaawantu ko juger ko euh, euh, cour d'appel pour balaa ñoo dem ci élection yi. yow ya gis lolu c'est une question est-ce que. yow ya ko gis est-ce qu'il a perdu ses droits. pour le moment non mais on a interjeté appel. non mais il faut arrêter soxna si. man dama japp ne vice de forme mën na ci am parce que lama lire ci Facebook bi gis ko mu génn si page juge bi man ak samay moromu nit gis ko su fekkante ne su base juge bi la il y a problème pour la cohésion sociale y a problème pour la stabilité du pays man loolu laa gëm te loolu laa jàpp ma japp ne kuy sos bañ lay condamner la war sa journal Walfadjri war ko si journal las? war nañ ko mun appliquer ci Ousmane Sonko man loolu laa gëm te loolu laa jàpp sama gis-gis bopp la sama gis-gis boobu moom laa téye diffamation si ab réew man da dama jàpp ne daan bi war na yegg six mois man da loolu laa gëm te loolu laa jàpp man da loolu laa téye waaye li ko ëmb ndurlu ko askanu Sénégal gis nañ ko man da la ma liir te gis ko man yéem na ma. da nga am mbetteel da nga am lu la metti non dama am lu ma metti parce que parce que da nga bëggoon mu dem plus de six mu bañ a nekk fekkente noonu la demee ñu ne kayta bi bokk Pastef ak juge bi bokk nañu seen yaay ak Ousmane Sonko bokk nañu y' a problème. falaa ko comme ñëpp. mais tout à l'heure vous disiez que le poste de Idi qu'il a mis qu'il a supprimé toi tu demeures convaincu que ce n'est pas sa page. mais xam si c'est Ousmane Sonko et le juge c'est leur page. mais moi, dans ma laaj man j'ai posé une question je n'accuse pas dama laaj bu fekkante ne loolu am il y' a problème man lu leer la et insinue. mais il problème a enrôlement bu gaaw bi damay demandé man je demande su fekkante ne même am na ma gis ko samay morom gis ko te ñu ne page su amee vraiment y' a ma mais Massaly enrôlement bu gaaw bi appel bi nag enrôlement bu gaaw bi ci appel bi nag. ah mais enrôlement fépp la man bi ñu ma tëjee même enrôlement la ma tëjee woon moom laa gis bàyyi leen naan dafa gaaw li leen arrangé rek ngeen di wax. ak lu leen di jëriñal. donc loolu day jox caractère politique procès bi parce que yow également. man arrestation ñu bari dañ taxawoon ne arrestation politique la dañ maa enrôlé comme tout le monde. mais dañ ne woon arrestation politique la ñu procès bi. point barre ma génn dem ñu sama yow procureur moo interjeté woon appel ci sa liberté provisoire. waaw mais raison pour laquelle fan laa mujj tey tooguma fii jàkkaarloo ngeen mais at na day dox c'est comme ça. pourquoi Othio man daal la may ñaan daal Mame Mbaye sosal nañ ko ba fay ko 200 millions man day damay ñaan yàlla Ousmane Sonko sosal ma ndax ma am lu toll noonu parce que soxla naa ah. simplement. comme ça mais tey pourquoi si procès bi ni à 24 heures du procès nous ote deux de ses avocats Lolu nek atteinte également ci li nga xam. ñu ote deux avocats. Ah. Ousmane Sonko ban comportement la ñom. am ci euh, euh, maître comportement la ñom. ban comportement la ñom aussi. Mhm. Lolu dafa yaral lacc. parce que procès bi passé j'étais là-bas. yi xewoon yëpp fekk ma fa woon maa ngi woon Londres mais bu ma ñibbisee bii passé man maa jiitu si saal bi fa nek. seeni doxalin seen taxawaay ak seen comportement askonu Sénégal gis nañ ko. doxalinu avocat bi di euh, ki nga xamante ne moom moo nekk fële euh, ca France. doxalinu avocat bi nga xamante ne dafa yegg si rek ñu delloowaat ko naka nga ko gisee également. borom kër la ka neex mooy kër nit du fa dugg taxaw saaga ma si mbedd bi bugg faa dugg. cër nga xamante ne moom la sekkal kër gi. cër ba si lan. Mhm. soxna si réew dafa am nu muy doxee. yéen da ngeen foog ne réew ab jardin d'enfants, la wala ab école boo xamante ne da ngay toog di génn récréation. non pas ça non même pas foofu parce que ay républicains, lañ quand même. ma waroon fii dëkk bi ñu fi nekk ñëpp xam nañ ñu yoon doxee. réew dafa am lu muy doxee mënul taxaw fee saaga suñu njiit ba pare def lu ko neex di duggu dëkk jambour non seulement yow tay demal France nga ne touriste nga fay def jënd billet allé nga xol na da nga bay nga rom frontière essay ko. visa non je ne parle même pas de visa. waxuma waxu visa. Allez simple. demal de jàmbur nga Allez simple nga xool la nga lañ lay laaj ban Je nga que tu fan nga def bi may Angleterre récemment. Ah, parce que ça n'a rien à voir Allez. avion mais tu dafa am ñuy mais yow Massaly man dafa élément perturbateur loolu nga jàpp. mais je suis pas un homme turbulent quand même hein. <laughs> en tout cas bi nga nek opposition. yaa ngi doon dóor ay kaba ci côté président Macky Sall waxoon nga sax ni ñi dem fekk ko yépp dañu am ay maladies congénitales. Mhm. man nak xaw ndax dama lay laaj sa bulletin de santé. comme dem nga. <laughs> loolu nag moo war valable si candidat yi parce que loi bi sax faw ñu soppi ko parce que ñi jité jiite ñu xol leen quand même parce que ki ñarar yor suñu rew ëllëg faw ñu xol lu mu andal lu mu ngemboo ak lu mu parce que intéressé nañu. Mhm. mais bu weesoo loolu ma gisaat la tamit ci biir mouvance présidentielle bi ngay attaqué ay ministre ak ay directeur ba ci premier ministre Amadou Ba ni ñoom dañuy travailler pour di dooleel ay noonu président Macky Sall. Ndeye Ndeye Fatou su ma la rusul woon ma ne journaliste alimentaire nga. <laughs> i waaw si. <laughs> j'aime bien j'ai beaucoup de respect et de considération à l'endroit de ta personne. Mhm. mais Sénégal li ko yàq mooy naafeq. Mhm. ak nit ñu bon. léegi man dina la jox citation. direct ci ma accuse man non je ne t'accuse pas. mais dama bëgg dama bëgg nga xam benn mbir man bi may def sama conférence de presse à Thiès man je un homme qui assume. il y' a combien de responsables ñu nek Dakar il y' a combien de ministres qui sont à Dakar il y' a combien de directeurs généraux yu yeewoo Dakar il y' a combien de députés yu yeewoo Dakar il y' a combien combien combien yu yeewoo Dakar pourquoi ñu jël sama wax attribuer ko le premier ministre Amadou Ba.

su doon ba Bal barki Cheikhul Khadim bi ma yaakaar damay taxaw fii tudd ko billaahi wal kitaab man mbindeef ragalu ma la respect bu jotee dinaa la jox cër ku dul Amadou Ba sax laa bu ma ko waree tudd dama koy tudd léegi directeur ministre yi nga wax nag mais dafa fekk réew ay ñoo ko yàq ay nit ñu bon ñoo ko yàq ñu taxaw di jaxase ay nit pour lan pour des problèmes crypto personnels ñoo xam ne dañuy xëy yeewu lamb seen poche duñu am dara xool ni ñuy jaxasee ay kilifa wala di yàq ay relation wala di sosal ay doomu aadama pour la ñaata nit ñaata nit ñoo yeewoo nekk benno nekk mouvance présidentielle di yeewoo Dakar la Bamba Fall def Médina kenn ku nekk bu ko defoon sa gox golo yi du ñu jóg bay taalum pëna di taal ay station essence di daj ay banque di toj ay kër man la ma wax je pour pourquoi ñu bëgg wax sama déclaration jël ko

déterminés, qui sont toujours battus et qui sont dans Bello Bokoyakar et qui n'ont jamais cessé de soutenir le président de la République. tey ñoo ñoo génn tay volontaire di fayda yi di lok yi nga chaque jour il ne d'insulter la cause des Sénégalais sénégalaises des jeunes qui méritent considération des jeunes qui méritent d'être des jeunes qui méritent d'être accompagnés et soutenus. Vous voulez que les ñoom lañ fi gis ñu taxaw di xeex mais dañ war a gëstu dooleel leen xeexal leen man la ma wax loolu laa wax. mais ndax da nga bëgg da nga bëgg responsable yow leeraloo yow li nga wax dafa yomb. ay ministre ay DG yuy soutenir ñuy ay noonu président mais limoo leen masali yow ñemel wax moom. Euh, soxna si ma wax ku yow la engagé. ñun dañuy laaj. Euh, amuñu pour di ci métti lu dara la euh, ma la wax leer na dama ne. la ma wax man ku si gis sa bopp yow la engagé. maa la ma wax man premier dame wax na ko barki dem chaque jour mu ngi koy wax mu ngi le militant yi di si wax. président de la République wax na ko. lu muy wax non li mu wax ñëpp gis nañu ko nañu gestu askan gi taxaw liggéey. jàppale président Macky Sall yow waxoo loolu tout à l'heure parce que le président tout seul ne peut pas eh, tout faire est-ce que da nga bëgg aujourd'hui inciter les responsables politiques qui sont à Dakar ñu recruter ay nervi non je ne parle pas de nervi non ils doivent être force de la population et continuer à et, et à définir la politique du président de la République da nga ne bi fi ñooñu li Bamba Fall def

waaw. ñi ànd ak président Macky Sall yëpp bugguñu ku tudd président wax ci loo xam ne ni jaaduwul parce que ci réew mi am na ñu ko bëgg am ce que personnalité bu mel ni Ousmane Sonko lu ko waaye bañ-bañ it di nga nangu ni Sénégalais yi bëgg nañ ko. est-ce que jaaduwul tamit ñu xoolaat bu baax yenn wax yi nga xam danañ ko wax ak lu mu déranger. wax par exemple day mel ni waa dañuy déshabiller pour bëgg ko wala bëgg nit ñi nit la boo xam bu simple la. moom moo population bi nga xam parce que moom moo fen fen yu toy xepp bañu daan ko si yooyu. moom moo mais du ñun bëgg parce que ba muy wax lépp wax rapport la wax rapport bi ba tey amut yaa wax waxuma indi sa preuve lan moo fi jar lii yëpp xew si réew mais ñaari civil yu war a jot mënoon a ñàkk lu tax état yëpp war a ñaari civil ñoo jote bu dee kaaw Adji Sarr Adji Sarr civil la bu dee kaaw Mambay Mambay Mambay da ko yóbbu. léegi kon di muy dem Sweet Beauté da nga bëgg lan mooy Sweet Beauté que xam mën nga la définition de Sweet Beauté. moom lañ bëgg xam kay fi mu est-ce que xam ngeen ko. lan définition pour dire quoi. naming naming do am définition naming bu am définition naming. naming tour. am définition définition mais hmm, définition bi. sud beauté signifier. non naming là tur la. Mm. nga jël sa dara tuddé ko. lu la non mais attends en anglais la. Eh, non mais kiko tuddé non yow li ngay def ni da ngay transcrire yow da ngay da ngay traduire. mais olof olof mais kiko tuddé mom définition djublou ko ci. lan lay signifier suite mooy lan. c'est que ban impact sax loolu. ah mooy lan ci ci ci débat bi nekk di def ni mm-hmm. non non dama koy tontu ci lu mu wax xam nga ñun man sa personne n'importe peu soxna si ay sauce dafa am fu mu yem man la ma wax dafa leer. bi mi dem suite beauté du président Macky Sall ko yenu wala membre gouvernement bi couvre-feu nga bàyyi say ñaari soxna dem na da ngay dampu ji dañu wante deug très bien alors. Euh, ah. am sa question yi dafa mel ni jeex na. waaw parce que pareegu moom mu. ah waaw. bi. damaa xam ne nit ku alors xam nga amna baat yo xam damay dégg souvent ngeen di wax violence violence wa kër Ousmane Sonko nangam nangam. parce que da ngay xool programme bi ngeen war a bu da ngeen bëgg ne da ngeen bëgg président bu dem bu demul da ngeen koy porter ci plainte alors. ba pare moom souvent ah te sa lu garaaw ba pare bu ñu waxee rek ñoom débat bi dañ koy daal di orienté directement ci Ousmane Sonko benn personne boo xam ne moom waxuwul dara dafa wax ne damaa bëgg damay wuti mu mel dañu bëgg loolu mu bëgg bala mu caa yegg ñu summi ko ba mu seet wan Sénégalais yi ne leen kii du seen référence te alors am na ñoo xam moom lañ choisir est que kenn ku ci nekk tey ak politique ak ni muy varié. ak ñan ñoo ko choisir changement am mais am nañu ko Ousmane Sonko lu gàtt gàtt xel xam ne ak lu waay gàtt gàtt dëgg xam ne Sénégalais yi ko bëgg. te dañuy wax ne àq bu nekk euh, sa àq morom mi ngi tàmbalee ci fa fa sa àq yam fa la sa àq morom tàmbalee loolu nangul président Macky Sall est ce que yéen it parce que politique day varié suba mën naa am yàlla am beneen surprise surprise est ce que su boobaa li ngay wax ni vaar su boobaa buñ ci egsee wax yu bare bari du soppeeku. c'est-à-dire lu koy soppi. ah parce que ni ñu ko défendre ni ñu ko attaqué nii maanaam muy mel ni tudd ko moom erreur la ci réew mi wala wala délit la. tey bu ñu demee ba tey yàlla soppi jamonoom est ce que wax yooyu yëpp danañ ci bàyyi nangu nga tey ne yàlla soppi na jamono. de bonne façon. moom man xam nga dama la. très bien façon bi moom laa lay tontu tey. waaw li xew tay Sénégal est-ce que meus na fi xew. di xoti ormalu chef religieux yi. loolu njëkkee wala père non. gis na ño xamné non sëñ bi je suis vraiment désolé. je suis désolé je t'aime bien tu es mon ami. doo doo mais c'est pas vrai. Hein? amul. ah man loolu ma jaaxal damaa ay tout eh, eh, écoutez-moi. Mhm. la wax. la wax lu leer la.

ñu ñu bokk leen génération ba léegi ñu ngi fi yeewu ji ci jàmm la jëlee réew mi moom la ko suñu borom abaleet bi ñu tëjee taxaw askan bi taxaw ne ko yow la ñuy xaar ndigal mu ne leen gëm naa sama justice réew. gëm naa magistrat yi nga xamante ne ñoo fi nekk. que lépp lu ñu àtte ñu xam ne loolu la dama jàpp ne mënoo bëgg réew taxaw ne bëgg nga askanu Sénégal bëgg nga Sénégal taxaw di xotti ormalu non seulement euh, le président de xotti. ormaaru les forces de défense et de sécurité nga xam yow ñaan nga yalla ëllëg doon réew mi ba xoti xotti ormaalu justice bi ba si kilifa diina yi ëllëg kan ngay jiite ëllëg kan ngay yilif bu baax euh, euh bu regarde yamal foofu yowal foofu ah non non non non non non non non non non non Neval Olof Ndiaye dafa ne. damay dem Thiès Olof Ndiaye dafa ne Olof Ndiaye dafa ne wax neex na trop Olof Ndiaye dafa ne wax neex na trop waaye dégg-dégg moo am solo yow ku la xam-xam ne nekkoo journaliste alimentaire non non en fait non dama ne dama ne bul mel ni journaliste alimentaire ngir li ngay wax. parce que dégo aucunement. Moi, c'était le nom de Amadouba. C'est quelqu'un que je respecte. D'accord. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'affection et d'admiration parce qu'on a beaucoup de appelé le président Macky Merci à vous. <laughs> Merci. Alors, nous voulons dire que d'avoir euh, accepté notre invitation. nous avons une rubrique à la tenue pub.